ñoo xaw a juum mm. waaw parce que ñoom L29 lañ liir mm. alors que L30 lañ war a liir bàyyil ma liiral loo ko Sénégal yëpp jégglu parce mm-hmm. que foog naa maître dundoo Ndoye daf ne mm-hmm. <laughs> plus de six mois lañ wax mm-hmm. am ñu bëri ñuy wax plus de six mois donc condamnation wu euh, Mame Mbaye bi mënul teree bokk Ousmane Sonko mais juumte la mm. parce que ya deux formes de radiation yu nekk ci biir code électoral bi l ak L30 l c'est une radiation définitive L30 c' est une radiation temporaire cinq ans lañ lay radier cinq ans mais boobu nañ ko déglu ñun ñëpp nga xool est ce que Ousmane Sonko bu ko daanee foofu noonu dina war a mën a bokk wala du mën a bokk. dootul mën a bokk dafa ne ne doit pas être inscrit sur les listes électorales pendant un de cinq à compter de la date à laquelle la condamnation est définie devenue définitive les condamnés soit pour un délit de l'article L29 foofu Ousmane Sonko du ñëw troisième tiré foofu Ousmane Sonko bokk à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieur à un mois donc boobu Ousmane Sonko bokkul ci parce que sans sursis la wax mm-hmm. et inférieur ou égal à trois mois ou ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois mmh. et inférieur ou égal à six mois mm-hmm. yooyu Ousmane Sonko daf ko concerné mm-hmm. donc décision Mame Mbaye bi L30 la. du mhm. l mhm. looloo jumloo ñu bari. décision mhm. Mame Mbaye bi bu définitive du mën a bokk. maanaam lu mat leeral la pour. parce que effectivement ñu bëri danoo jàpp ne décision Mame Mbaye bii nii supérieur la ñu wax parce que boobu L29 lañ nekk ñoom. il faut aller à L30 pour lii ma la wax nii loolu moom moo fa nekk. inférieur ou égal à six mois la wax inférieur ou égal. donc kon Ousmane Sonko daf ciy bokk. Mhm. donc. maanaam waaw. li ñu mën a euh, comprendre parce que euh, Mame Mbaye ñaa boo duggee dans les faits di nga xam ne ce n'est presque euh, rien du tout. Mhm. du doon dara d'autant plus que diffamation c'est tellement légère pour écarter un candidat aussi sérieux que Ousmane Sonko. Mhm. et puis diffamation sax amu fi man li ma gëm mooy diffamation mooy li article deux cent cinquante-huit wax. tout allégation ou imputation qui vise à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne mm-hmm. affaire u Prodac bi ñaata nit ñoo ko wax bu doon honneur de considération rek waaw bëri nañ ci si wax ah kon lu tax jàpp bu doon parce que diffamation moom li mu soxla mooy yow sa honneur ngay préserver waaw mais si c'était une question d'honneur pourquoi bàyyi ñeneen ñi mm-hmm. te topp Ousmane Sonko si c'était une mm-hmm. mais man dama gëm ne y a une question politique aussi y une question politique boo xamante ne les adversaires politiques bëgg nañ ko lijjanti ak Ousmane Sonko. Mhm. c'est aussi simple que sax mhm. donc. mais dafa mel loolu day fay de gis nañ daf mel ni. Euh, gis nañ ko ci gouvernement gouvernement mission et de xaw ma la. waaw waaw ñoom ñoom ñoom. gisoon nañ fi ñoom ñëpp danoo jàpp ne. ñenn ñi dañoo ñu wane woon sax ci benn vidéo ñuy saaga Ousmane Sonko saaga Ousmane gis nañ leen ñu def leen tey ministre. dafa mel ni saaga Ousmane Sonko a un moment donné moom mooy euh, nekk vecteur bi lay may promotion ce n'est pas ta compétence te ne ce ne sont pas les résultats du liggéey boo defal askan wi ñu gën a virulent contre Ousmane Sonko xëy na ñoom la ñuy euh, promouvoir peut-être mm. mais li wér te wóor mooy jàpp naa ne Ousmane Sonko taxawaayu askan wi mm-hmm. bokk na ci li gën décisif parce que gis nga euh, Ziguinchor. Mm-hmm. le juge a été très courageux. Mm-hmm. mais tamit askan bi était à côté de lui ah. taxaw taxawaay bu am solo nag. waaw parce que justice bi ñuy wax ci turam lanu ko joxe. alors comme que ci turam lanu ko joxe askan wi am na droit de regard donte je condamne l'arrestation injustifiée du maire euh, Bakary Diatta maire de Bignona. pour la. te pourtant ñëpp a ngi toogoon foofu noonu ñu sepp ko ci moom yóbbu. donc donc euh, taxawaayu population ba foofu noonu Ziguinchor de Sénégalais pour man aussi. Euh, am na am na am na impact bu baax a baax a baax. ci euh, mbir mi. mais y' a pas que Sonko sax mais xaa mais euh, balaa boobu Pape Moussa dañuy mhm. nañu nuyu étudiants yi nekk Arabie Saoudite ñoom ñu ngi def. si waaw ne ñun nee nañ yéen rek la ñuy topp. Pape Moussa Maam Khady waaw ñun tamit yéen rek la ñuy topp di leen jaajëfal ci seen ànd ak. Walfadjri bu ñu amee lu leerul parce que kaa boobu noonu. Mhm. dafa am lu bëri lu ci lënt. parce que dafa am ku ko sax moo tax. sama parce que dafa dafa dafa ma dégg ñu wax am ñu bari ñu ma dégg ñu wax ne mhm. affaire Mame Mbaye Niang même bu condamnation bi définitive mënul mhm. tere Sonko bokk parce mhm. que article bi plus de six mois la wax effectivement mais c'est L29 qui dit plus de six mois pas L30 te bu boobu bu L30 bi dañ lay radier pour cinq ans ne peut pas être inscrit pour cinq ans loolu laa lire léegi boobu donc kon dafa am inférieur ou mhm. égal à mois. gisoo ki lee di bëgg fàllu moo koy am mu ne mais est-ce procès de Mame Mbaye Niang ne peut pas éliminer Sonko six mois avec sursis. justement ne éliminer pros on dit plus de six mois. l la yem moo tax c'est-à-dire six mois plus un. mu bëgg fàllu moom moo wax. la bëgg mhm. fàllu yem. Mhm. nee ko na dem liiral naa ko le contenu de l nii. dafa ne inférieur ou égal à six mois. waxaat ne. euh, supérieur ou égal à trois mois. Mhm. donc L30 bi lay concerné mais pas L29. Euh, mhm. mhm. donc kon ma ne la gars yi. droit bi nan ko tegee ne ba DGE jox Ousmane Sonko ay fiches waa fiche yi xam nga Ousmane. nañ tegee ne droit bi ba pare. parce que fii toll nii cas bi droit li jëntiw ko. waaw lii moom parce que droit bi nee na Ousmane Sonko tous les arguments sont là. on les a déposés depuis combien de temps. chaque jour ñu wax les arguments de droit yi nga xamante ne. ñoo nekk en faveur de Ousmane Sonko. waa léegi comme que ñoom faale sax. mais xanaa nag justice sénégalaise bi wax. réintégrer leen waa ji ay la yowen nga réintégrer ko nag jox koy fiche mais bu ñu bañee def lii nañu xam ne affaire bi du ay L29 ak L30 ak L57. déedéet. mais léegi bu defee nii juge bi nga xamante bi moo def décision moom mënatul a fait son mais gis nga lii moom moo waraloon. Mhm. Ousmane Sonko dem ba ci benn extrémité bi. Mhm. yaa ngi fàttaliku bi mu ne da day engagé une campagne de désobéissance civique. Mhm. yaa ngi koy fàttaliku. parce que dafa am lu ko waraloon. yeewu Ousmane Sonko yeewul rek ne du ma wuy ji du wuy ji terminus bi non. am na ay tappalekat yuy taxaw nag naan non moo bañoon dem moo bañoon déedéet. Ousmane Sonko dafa wuyu wuyoo ji wuyu wuyooti dem euh, audition dem confrontation wuyu lépp luñ ko doon convoqué. Mm-hmm. voilà léegi wax yàlla wuyu à chaque fois muy am lu ko ñu toj vie da ngay wuyu après ñu wuyu ji justice ñu mm-hmm. toj ci sa oto mm-hmm. xotti sa la am na bis bu dul woon Guy Marius Sagna la lambay ñaaw ah ba ci la demee woon hôpital hospitalisé woon waaw mais vu tout tout ça mais Ousmane Sonko ne mais man attends mënuma respecté koo xamante ne respecté wu ma de la justice alors donc kon koo xamante ne manifesté wul respect ci yow mënoo ko koo delloo. Mhm. alors donc tey jii nag nii nii nii nii di am. Mhm. moom bu dee euh, décision bi appliqué wuñu ko. ce n'est pas un manque de respect en faveur de Ousmane Sonko. Mhm. déedéet euh, au détriment de Ousmane Sonko. manque de respect bi peuple sénégalais lañ koy teg bu boobaa. parce que lii euh, juge Ziguinchor bi wax. waxu ko au nom de Ousmane Sonko. daf ko wax au du peuple sénégalais mhm. alors c'est ce peuple sénégalais la moom la ñuy manquer de respect en passant par la justice mhm. te nag pesu kanam lay doon bu boobaa mhm. borom rek ko mën a fajal fajal boppam li ñu naan mbajum kanam borom a kay amul amul amul amul leneen bu ko mën a lijjanti lu dul loolu parce que jàpp naa ne Ousmane Sonko actuellement situation bu muy dund ak ay militants wu Pastef parce que bu ñu foog ne bu ñu fàtte am am na ñoo xamante ne sax euh, ay sympathisants. Mm-hmm. tu as vu qu'il a redémarré une grève de faim. ci laa doon ñëw sax euh, ci waaw mën nañ ci ñëw de mais euh, Cissé Gaye depuis Thiès ñu ngi lay mm. nuyu yow tamit nee ñoom tamit bu ñu leen bàyyi waa Thiès waaw waa Thiès yéen tamit ñu ngi leen di ziar Cissé Gaye waaw ci grève de la faim bi ci laa naroon ñëw sax mm-hmm. nañ ko pause. Hmm. parce que dañ nekk ci benn registre mooy euh, lu jëm ci parrainage hmm. mais